daa ceeg alaaji Ahmed Aidara tey mbas mi la corona nga bax soob li ne ni ki dee mu dee juróom-benn fukk ak juróom-ñeent daal la mbir ma dal allahu akbar fanweer ak ñeent dee ña nga sowe taas am na kenn koo xam ne dee daal di nay dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne leen téeméer ak fukk ak ñeent dee la ñu faj ñu wér alhamdulillah Ndakaaru Njaay jël Joob moom waaw jàpp leen ne ne daal di nay wàcc

ñaari téeméeri junni ñu daal di koy jagleel kon nag yii di étudiants yi fii ak fan kon joor septembre ñetti millions ci ay masque de séddalu ko élèves yi école bi ubbiwaat nag yéen a kaa gi ne ngir nag maanaam dalal xel ci qualité production masque yooyu waaw ministre Moustapha Diop de waatoon na ak ni ko yoon santaane waaye tamit organisation mondiale de la santé nam ko santaane en tout cas président nam ko santaane de le soleil yéen a kaay nee sénégalais yu ko deful de ah waaw parce que nag ñi nga xam ne kon dañoo ci wàllu masque ñaari mitit kon la ñuy dund mititu mbas mi waaye tamit mititu amuk jëmm di leen stigmatisé waaw coow li coow li tey ginnaaw mbas ma corona bi bu jeexee ah. parce que Mamadou Lamine Diallo tey ci vingt quatre heures ah, ah. na Macky Sall mi lee est-ce que dina mën a nag suñu wàllum koom-koom gi bu mbas mi jeexee looloo jalaaj Mamadou Lamine Diallo na parce que Macky Sall ngi nii ci digg xeex ak mbas mi lee la sax ne mes bàyyi ñoo moom te Macky Sall ne li ko wax mooy indiwaat poste premier ministre bi booy benn ñaar daal di attaqué xeex bi nga xam ne kon moo dox ci diggante ministre finance Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo al ministre économique bi de Amadou Hott yéene kaa gi ne dekkalaat nag wàllum atu politique yi ah, ci juróomi at yi waaw Macky Sall daal dossier yi xam ne kon ñoo koy xaar a ngi ni ne bu njëkk ba mooy daal di tas affaire eh, la ilaha illallah ah, waaw organiser waat nag wàllum parti politique yi de mooy benn ñaar Macky Sall war naa def kéem kattan de ba gis nga député yi bañ a nekk ci ay député xuusma ñaar ay député yoo xam ni fulaa saa yi da jàkkaarloo exécutif di wàllum palais bi de yéene kaa gi ne ba gis nga monsieur le président waaw a baax yow sagalal ñi nga xam ne ñoom ñoo la votaloon ci ñaari question yi ñu la wax ay président sagalal ñi la voté may leen boo demee sax ñu ne Macky Sall mii waaju baax la woon jàppale leen ba boo demee ñi la voté loon ne Macky Sall mii waaju baax la woon Thierno Bocoum day waaw nee na man li may laajte est-ce que assemblée nationale bi de nekkatul moomeelu APR aa Thierno Bocoum ne ah lu laa laaj bi ñu nekkaa ne en tout cas doy na wax parce que Moustapha Cissé Lo de waaw ginnaaw nag bañ ko kon ci parti bi de mujj nañ koo dàq ba Benno Bokk Yaakaar eh Samba eh way Samba tribune yéene kay ne Macky Sall ak ñii muy tànn ni le 2012 ba léegi ni le seize hommes waaw mais doy na waar gars yi dañ leen di ŋaññ ndax ay wax yu ñaaw lu mu tabax si solo kese de déedéet ñeetu ci ay journalistes yoo xam ne léegi soppeeku nañu nekk ay politiciens waaye bu dee tamit de eh, am nañu ay saagakat waaw am na ñoo xam ne ay affaire la ñu nekk tam ay homme de valeur mosoo leen a dégg ñu wax waxi ñaaw wala di saagaat lu ñu mel exemple Seydou Gueye ngi ni le Abdou Mbow Alaaji Amidou Kassé mosoo bi di ne dama waa Benno Bokk Yaakaar te daal dina ñuy dàq na kon Moustapha Cissé Lo ci groupe parlementaire ba les ne ginnaaw ah. nag ci ñi nga xam ne dañuy préparé seen yëfu bopp ànd bi ñu ànd ak Macky Sall du dëgg ci ñoom ah Bara Ndiaye damaa ko wax den la wax waaw soow lii nga ne maanaam moo ci Moustapha Cissé Lo yaa xam bay ak Farba Ngom waaw askan wi de nee nañ la leer Serigne Laat Ndulo ci Sousa waaw nee nañ ñi nga xam ne nag maanaam ñoom Aziz Soumaï dee dañoo war a yëkkati ay daan lal ko seen nodd loolay dëgg réew mi quotidien ne lii dëgg kay mooy kilifa yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy saagante ci kaw Assane Diouf ak Abdou Karim Gueye xurum xaax mais ñooñu koy rek léegi nag war nañu leen mën a bàyyi nag dëggantaan évidence yéene kaay ne scandalu gazelle oryx yi lé dañu àll yi waa ministère environnement indi nañ ay gindi sur ça ne Abdou Karim Saldé waaw olee mu indi nag ay gindi yu leer si gazelle oryx yooyu nga xam ne kon nañ leen a jëlee ca Ranérou yóbbu leen ca toolam ministre bi waxu fi dara ministre bi daal waxu fi dara you cannot say the Kadir. And gàggasal yooyee dee nañ leen ko waxe dee te loolu Abdou Karim Sall boobu lañ ko doon yóbbu waaw waaw waaye la ca doon waar mooy gis nga parc nationaux yi nga xam ne nag maanaam te ministère am la ñu bokk dee dañoo signé ab convention ak gérant bi eh waay samba te ñaar ci bëyu àll yooyee di gasal ya ci yoon bi la ñu dee de ay damm dam ni nit yi miti sax leen rey Allahu akbar Abdou Karim Sall waaw nee na fii amul benn conflit d'intérêt laa la wax Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay ne Macky Sall kat xam nga lan mooy catam wax sa xalaat la bëggul ay débat nii wala mu wax lii nga ne ko d'accord ma ci contradiction histoire a ko yéen i kaay gi ne daal boo bëggee dégg dëgg eh. nguuru tas la la grande déception tas yaakaar la la wax ñi muy tuddee de ci laas waaw nee na statut fédéral bu bee dañ koo war a remplacer ak bu ndafe yàlla yéen i kaay gi ne docteur Alioune Badara Kane Diouf waaw nee na gis nga xar yi xar yi voilà te doomu jàngoro ji de mën naa jóge waat ci xar yi de wala ñëpp nar a daje de Sud Quotidien ne réciprocité bi de waaw visa visa waaw Ndakaaru ñaay jël joote defante yéene kaa gi ne Mauritanie day wow commission d'enquête parlementaire ba wow président Abdoul Aziz ba fa nekkoon de dañu koo jox convocation mu lànk ne du ko déchargé ay président africain yi bu doon ko wàcc ñu audité la yóbbu la ci yoon ndaw yi scandale waaye scandale yooyu itam du ngan na ngan na ngan na ngan na ngan na ngan na ngan na bëgg na ngan scandale pétrole bi de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek moo pare ma la alaaji fi jël